def kéemtalaay kàttanam ba feebar bii di coronavirus du yokk ay jéegoom ci dëkk bu sell bii di Touba mooy mbébétu Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaynde Fatma ministre conseiller bi soli dàllam ànd ak ki jege ñaaleem yóbbu ay jumtukaay yu bare bare ci askanu Touba rawati ñi nga xam ne ñoo féete ci daara yi. tey nag li nekkoon sunu sunu yitte mooy ñun dañoo jógoon ne kat li ñuy def dañ koy tàmbalee ci daara yi loolu tam li ko sabab. du dara lu gis nañ ne ñooy ñi nga xam ne ñoo gën a néew doole te ñoom li ñu digle def nañ ko ba noppi parce que daara yëpp tey jii confiné nañ seeni donga daara kenn gënatul kenn dematul fenn te loole xañ na lott nañ ci lu ñuy toppatoo daara yooyu ñu ne woon dañu koy def itam ndax sàkku ci ñaan ci barkeb alxuraan sunu borom suturaal nu dimbalanu tin sunu kilifa yu baax yi fi dekk ba jeexal mbir mi ci Sénégal jeexal ko mbooleem ci ci àdduna si kon moo taxoon tey ñu xëy di wër daara yi ngir jot li nga xamante ne bii mooy ay ndimbal yoo xam ne dañ ko def euh, di sant nag bu baax a baax ki nga xamante ne bii moo di Cheikh mun Mountakha ndax moom moo wane yoon wi ndax dafa ñaan ba noppi daal yëkkati koppar yu takku. jox ko président de la république ne ko lii maa la ko jàppale ci nu ñuy xeexee jàngoro ji kon kooku dafa war a aw yoon kon képp ku dib taalibe képp ku dib jullit képp ku dëkk ci réew mi eh, dund doomu aadama yitteel la war ngaa jóg seq ay jéego ci yoon woowu ngir jàngoro ji xam ne ñun ñëpp ñoo war a maase ànd xeexandoo ko di itam rafetlu jéego yi nga xamante ne bii ak dogal yi nga xam ne président teel na ko jël euh, loolu ñëpp itam Sénégal ànd ci ak moom muy kujëg politique gi muy kilifa diine yi muy kilifa aada yi kenn desut kon tey jii mel na ne Sénégal def na benn bopp ñëpp maa si ànd di xeex jàngoro ji loolu nag foog naa ne sunu borom danañu tin ba wax nañ ko léegi alhamdulilah kenn loroogu fi ñu ñaan yalla rek kenn mañ fe loru waye surtout surtout ñu fagaru te moytu Nous ba ñimi dal ci réew mi Nous ndax su dina indi ay complications. li li nga ne jot na fay Nous te ay nit di di wax ne feebar di coronavirus amul ci dëkk bu sell bii lépp ay plan la. Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaynde Fatma yéemu ci lool waaye di wax ne am na yaakaar de fi mu toll nii loole weesu nañu ko gannaaw ba nga xamee ni Serigne Mountakha ba Bassirou jël na ñaari téeméeri million tàbbal ci xeex wi. feebar bi dafa dafa am ndax soo amutoon Serigne Mountakha du ci dugal loxo xanaa mayees naa wedd ku nekk ba mu des ki nga xam ne moo fi toog Serigne Touba te li nga xam ne yëkkati ko def ko ci loolu rek tegtal la ci ne feebar bi am la. feebar bi lu am la sëñ Sam wax na ko léegi ndax bu dee tubaab yi ñoom àdduna moo leen yitteel te lu jëm ci wàllu koom moo leen yitteel te tey jii seen économie yëpp dakkal lañu ko dara dara dara doxatu fa dëkk yëpp tëj nañu ko kenn duggatut kenn gënatut kenn jaayatut benn production amatut kon loolu day tegtale ne feebar wi lu nekk la ndax ñoom tey jii ay milliards yu du jeex lañ ci perte bu ñëwee Sénégal gii euh, tey boo demee port Dakar doxatut nga xam ne kon loolu ay milliards yu jeex moom la ci état bi di ñàkk président la République dem ba ndeket fetu 4 avril amatut muy fet gi nga xam ne moom la ñu gën a fonk ñoom kon loolu lépp teg tegtale ne tawat ji amul lu ñuy sikki sàkk ci ne am na ak amut te kenn amul intérêt wala sax mën naa ne kenn ñemewut di xëy di wax yu mel noonu ci ay caaxaan ndax fii ndax ay mu kalaf rek ñoo fi nekk kenn xamu leen ci ay ci kon nag li nga xamante ne mooy li ki des moodi di <clears throat> bu ñaane ba noppi ñu nag fagaru jël suñu ay matuwaay bu ñuy gisee ñu naan nit ñi nañu toog seen i kër dañoo gis ne fa nga xam ne tawat ji fa la njëkk a jaar gannaaw ba bu nit ñi toogee seen i kër ci la tawat ji tàmbalee wàññi boo demee réew mel ni Chine nga xam dëkk bu mu génn onze millions de personnes ñoo fa nekk dañoo tëj ñëpp ne bu kenn génn bu kenn def fenn tey ña nga wat reprendre sen économie rew ma nga tambalé doxat ndax tawat ja ma nga wañiku bu baax baax baax kon baatu tawat ji amu fi mom ci deug deug lool mom nañ ko ne tegg fi suuf ndax lool musiba la musiba la dafa na même ñako doon wax ñepp tam ñu ci bari sax delu nañ ci ginaaw ndax xamni tawat ji lu nekk la donc kon fokk na lool ay rumeur la won rek waye japp naan tay ji wessu nañ fofu kon tay suñu ñu mo ñun ñepp ñu andando nek ben xeex jàngoro ji xam ne moom rek moom la teg fi suñu kanam bu ngeen gisee mboolem leader politique yi nga xam ne am ñoo xamante ne bii foog naa ne mosuñoo ànd ak nguur gi ci dara tey ji ñoom ñëpp ñoo jóg ne président ñu ngi sa ginnaaw te ñooñu foog naa bu ñu defee loolu loolu si beneen tegtal la buy wane ne tawat ji lu am na te lu ay caaxaan kon nag buñ ko caaxaan li nga wax léegi nag ñun dañ ci am double responsabilité bu njëkk bi xëy na mooy wala waaye beneen bi aussi moo di en tant que ku bokk njabootu Serigne Touba. moo tax nag ba nit ñi dañoo war a wax ak ñoom dañ leen aussi war a jàppale moo tax ba tey jii ñu xëy di def lii te jàpp ne incha allah dañ koy ànd ak ñoom lii jéego bu njëkk seq la. waaye dina am yeneen jéego yoo xam ne moo ci topp soob yàlla ministre conseiller Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma di wax ne mi ngi rafetu loolu jumtukaay yi nga xam ne nguur gi jël na ko ki matuwaay waaye it di sàkku ci Sénégalais yi nu sàmmonteeg tegtalu way kër docteur rax ci dolli fexe ba képp ku nga xam ne yaa ngi yeewoo ci dëkk bi nga saxoo di ñaan jàngoro ji gaaw fee jóge